kilifa génnaat ñu taxawal ak kenn koo xamante ni dawul cene ba ambassadeur la waaye yaakaar naa ñu ngi seetaan ci sax te ñëpp xam ne wu tam ñi ëpp xam ne ko euh, muy euh, di dégg ci micro mu defal ñu jàng ci liggéey parce que yaakaar naa ne événement bu toll nii euh, bu ñu événement mooy président de la république bu n'importe ki nga xam ne moo ne moo nekk numéro un ci Sénégal di président de la république bu jógee seet ci la xalif général de Thiénaba yaakaar naa ni loolu bës la waaye li ma si xaw a jaaxal mooy suñu taala euh, daf dañoo gis ay kilifa yoo xamante ni ci kër gi euh, ñu ñëw ràññee lañ ñoo xamante ni wax dëgg yàlla euh, événement bu am kenn ba bu ñu leen gisul ñuy jàpp ne événement yooyu amul waaye dañuy gis ñu ñu ñu téye la ci buntu bi ci mel ni imam raat mi ngi euh, mu nekk imam raat de la grande mosquée de Thiénaba dañ ko téye bi waaye tamit euh, Serigne Cheikh Tidiane Seck di xalifa Baye Cheikh Mouhamadou Ly Seck ak ki nga xamante ni mooy Serigne Ibrahima Seck di xalifa ma Ibrahima la waaye nekk xalifa Baye Serigne Talla Xaar Serigne Talla loolu buñ ñu ko dee jàng ana naka nga koy waaw ah, ah, jërë ngeen Thiénaba a bu ci tàmbali bi rek dafa bokk ni ci diggante yi ko amaat. bu ko defee président mi ngi ñëw xam naa dinañ jëlaat sëñ Talla incha allah dañoo bëgg jël président su ko defee rek. lucky I will accept you. yéen a ngi gis noonu. gendarmerie mooy ñëw noonu quoi gendarmerie mooy la gendarmerie. Parle sa commentaire. Parle sa commentaire. gendarmerie mooy ñëw noonu. waaw xam naa mag yi sorewuñ quoi président bi soreetul général beeg yooyu général beeg yooyu ñoom ñoo ñëw ñu ko ñu gis nga rek. tey jii moom Thiénaba moom am na beneen beneen kii quoi beneen xar kanam quoi parce que parce que xaw na xaw na xaw na xaw na difficile quoi xaw na difficile lool lool lool lool lool yéen a ko gis nii sécurité bi. waaw gis nga ko nii kilifa yëpp ñu ngi nii ñu ci bëree bëri ñu ngi taxaw ñu ngi taxaw mooy ñu dugg imam Rafi sax dañ ko téewoon mais mais dugal nañ ko quoi waaw monsieur le maire ñoo jël ko ba dugal nañ ko quoi kon xam ngeen ne am na sécurité quoi waaw tey jii moom wax dëgg yàlla am na sécurité lool lool lool lool lool général baa ngi nii oto gendarmerie yaa ngi nii di nii oto gendarmerie yaa ngi nii di gaare nii waaw mag ñi moom président soreetul quoi xam naa ñu si yenn Even a lol, lol, lol, lol, lol.